ci ñaari ñaari yëf benn bu njëkk bi muy ci hectare yu bari yi nga xamante ne wax nañ ne am nga ko ci réew mi ak euh, beneen bi ci topp muy lu jëm ci marché bi ñuy wax bu mujj ne Idi Thiam euh, gagné na ko te te te ko merci beaucoup dama noonu duma ci wax mais am na borom xel yu ne borom xel du foobee la cib taw booba wax ji bëri na teg di def li may def mooy ci marché état bi dégg ngeen fi coow ñu ne jox nañ ma cinq mille tonnes sucre cinq mille tonnes diwlin te mënuma koo livré te ñoom bi ñu wax loolu jox nañ ma booba te boobu maa ngi ci sama digg livraison waaye comme wax jóg na bëgguma tontu ma ba rek def li wax xam ne ñi doon wax ñëpp dañ leen a alimenté salu si moo ci dugg ñuy wax waaye marché bi état mayu ma ko appel d'offre lañ def am ñu ñëm ñemee soumissionné am ñu ñëmut a man dama woo membre yi naa ko ay war a soumissionné yëpp ñu am ñu ne duñ soumissionné am ñu ne ma man day bëggoon naa démissionné mais wóoluwuma état parce que mën na bañ a fay wala mu yéex a fay ma ne man sama ngor mooy ma bañ a démissionné may démissionné ma démissionné suukar suukar ceeb diwlin euh, saabu joxuñ ma ceeb. tax nañ ne ma dama serré maa gën a serré ki doon jaay deux cent soixante quinze joxuñ ma saabu rek ne maa gën a serré affaire bi serré comme xoolal naa aw ma ko woon dix tonnes laa jamoon ma ne c'est pas la peine mais suukar bi may simisalee boobu maa ngi cinq mille tonnes en stock ma simisalee gaañu ceeb gaañu diwlin ba ñuy wax boo fekk la man maa ngi récolté sama suukar pour li di commencé livrer ak bi coole bare ma woo ministre bi mu yóbbu ko kaay seet stock bi. Mansour Faye mu yónnee ma daafa daaf bi ñëw minuit une heure dem ci fi ma doon reconditionné ay suukar mu ñëw xool na lii day il faut ministre ñëw xoolal boppam te lan demee samedi ministre bi wàllum boppam ñëw xool boppam bi na fa stock wu doon li ma reconditionné ba pare le prix de quarante bu ñu ñëwoon mën nañoo sàrde te du jeex te booba coolaak na ko moom ci boppam xam na ne li yi doon wax amul mais comme man boole wu ma dara ak wax ma continué nag di livré ñun joxoon mille tonnes maa leen a pare man fi ma joxe ak fi ma livré ba mate passé wut un mois un mois cinq jours pare na le deux six mois fekk na ma pare bugg sama ba pare kon coow li ñu wax yëpp dara du ci dëkk dégg ngeen fii tam ñu jox ay hectares yi na mu dañ maa jox soixante dix hectares maa leen si la ko commencé ca Senghor fi la ma fekk Abdou Diouf Macky Sall euh, Abdoulaye Wade kenn koo mës a jox benn mètre carré suuf amul lim mu néew ma am na suuf am naa suuf waaye li ma am mu néew bu bëri dama ko jënd waaye li nga wax na dara mu ci loolu laa bëggoon mu leer nañ